nee nañu di bàyyi xel yett yooyu dana tax am leeru xol dana tax am xam-xamu diraaya faqsud na nga jublu bi ci xam-xam bi wajjahal jalili jëmmi aji màgg ji yaa fataa yow cam si te jit kon nga fekk jasa ak sag pay naiman muy xéewal tabatagu sax na fexeel daal ba xam-xam bi ngay sàkku yàlla rek tax nga fas yéenee xam la yàlla bëgg ba sax ca ak xam la yàlla bëggut ba sori ko loolu daal boo ko defee xam-xam bi am njariñ yàlla gërëm la fay la bu ëllëgee xéewal goo xam ne amut fu muy yem inna lës yi naka ka nga xam ne lam yaxsha agalut rabbal alamina boroom mbindeef yi laysa bi aalimin du aji xam walaw af naa ak doonte jeexaloon na alfunoona fànni xam-xam yi nee na ku jàngoon ba wannu lef jeexal mboolem xeeti fànni xam-xam yi waaye taxul mu am ak ragal yàlla kon moo ku dalagul baa ñoo yemoo te sax ku dalagul baa moo ko tane ndax mucc ga ku dalagul baa di am moom su watuut du ko am moom la alxuraan di wax naa innama yaxsha llaha min ibadihil ulamaau maanaam ñi xam ñoom rek ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëggi ragal yàlla fekk alxasiyatu boobu mooy ragal gu ànd akuk màggal ragal gu ànd akuk màggal nag mi ngi juddoo rek ci na xam-xam ba tollu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu gënoon a xame boroomam noonu la ko gënoon a ragale ba sax waxal na boppam ne man yéen ñëpp maa leen gën a ragal yàlla te feeñoon na ci bu daa julli nee nañu ab dënnam day riir mel ne kàddu cin lu bax di wañax ndax rekk ragal yàlla ak it àggoon na ci gis asamaan si xiin nit ñi bët defe ne ab taw la ko defee moom mu mel ne day tiit ragal ñu ne ko lu tax mu ne daa am nit ñu gisoon lu mel nii ni ab taw a ngi nii di ñëw fekk booba du ab taw mbugalum yàlla mu rëy rëy la mu jëm ca ñoom ñooñu mooy nitu xadd ñañ yabalan ca ñoom hóod alayhi salaam hada xaaridum mumtiruna bal huwa mastaajaltum bi riixun fiha xadaabun alim ba tey saxaabaam yi nga xam ne dañoo ràññeeku woon ba am ci fukk ñoo xam ne da leen a digan àjjana te ñu dund ka ci jëkk di Abu Bakar na mu ragale woon boroomam doy na waar àggoon na ci di mébét rekk doonoon garab goo xam ne dañ koy dog rekk waaye du nekk kuy faatu ñu koy dugal ci bàmmeel aka dekkal aka laaj ku mel ne Omar bi nga xam ne buñ ne Aboubacar moo gën ci xeetu yonante bi gannaaw yonante bi dañuy wax ne Omar moo ci sës nee nañu déggoon na kuy jàng sóoratu tóor ba agsi ci inna xadaaba rabbika la waaqia maa lahu min daafia loolu mooy mbugalug yàlla sa borom day faaw rek luy dal la dara mënu koo tee dal naka mu dégg loolu tiit jële ca tawat joo xam ne ay fani fani fan dañ koy seet si mu mel ne daal mu mel ne ku tawatoon bu yàgg yàgg gannaaw bu saxaaba yi jàll itam ñu sësan ci ñoom amoon nañ ragal yàlla goo xam ne yéeme na ni ku ñu wax zoraara mel neen doon na jiitee julli suba naka mu jàng rek fa isa nuqira fin naa xuuri li muy tekki mooy bu ñu walee bufta bi loolu la jàng daal di daanu ñu yëngal ko fekk mu sedd guy sëriñ bi taalif téere bii ci kiimtaani yàlla yi gën a yéeme la bokkoon ci gëm yàlla ak wéetal ko ak ñàkk gis lu may yàlla ñàkk gis lu may yàlla ak ñàkk yëpp lu may yàlla taxoon na tubaab yi daa ko fitnaal defe ne da leen a ragalut da leen a faaliwut waaye bu leen faale woon du doxalee ñoom ñi muy doxalee ñoom fekk na moom dafa gisut yëgut lu may yàlla kenn ci tubaab yi ak junni nekk fi moom ñooyam ci moom lu yàgg-yàgg itam du xàmmee kanamu kenn ak kenn la mu nekk rek ci digganteem ak boroomam rek lu yëg yëgul leneen gannaaw bi tubaab yi xamee sax ne loolu du lu mu leen beral tax na seen digganteeg moom xaw a woyof yëg gi mu yëg boroomam ba ca dayoo ba ak ñàkk gis lu may boroom ba ca dayoo ba tax na waa këram ñi dëkk ak moom ak jàmbur ya bàyyi koo fële ak tubaab yeeg keneen ak keneen ñoo ci yemoo kenn amul ci moom benn cër bu may yàlla boroomam rekk nga xam ne nanguwul ko tudd ci wetam dara dara lu may yàlla nee nañu am na ku mas a ñëw ci moom am kum àndal ba mu nuyoo ba noppi ne sëriñ bi kii sama jaam la dama ko andi woon di la ko jox addiya sëriñ bi ne bërit di julli rakkaayu gudd gudd rakkaayu yàgg lool ba mu noppee ne ko loo wax mu ne ko kii sama jaam la dama ko andi woon di la ko jox addiya sëriñ bi ne ko boo ko moomee yaa ma moom nga xam ni moom xam na ne jaam na ko jekk mas nay am ñu koy jaayee ko jëndantee ko mayee ko def leen lu ne waaye waaye moom la mu gis te mënta gis lu may moom mooy yàlla rekk mooy yàlla di ab sang ku bokkut ak moom ak lépp lu bokkut ak moom di ab jaamam foofu nag ñu jàppale fi ne jaam yi amoon fii ci réew mi kat li ci ëppoon doon jaami yoon jaami ëpp doole képp la woon jaam ci yoon dëgg-dëgg mat naa xàmmee mooy bu wooyee yéefar bi ci lislaam mu bañ ñu laaj ko galak mu bañ ñu xeex ak moom ba jàpp ko nag loolu mooy jaam ci yoon ba tey jaam ba bu amee doom ba mu amaat doomu esta diwéy li fekk ak ngor di ca am rek loolu jaami cosaan la lu bokk te loolu nag jaami aada rek la nga xam ne ak tooñ gu réy la woon fii ci réew mi daal kenn ku ne war nay moytu diw sama jaamu maam la woon ak lu ko nuru ndax li ëpp ci xeeti jaam yooyu du woon jaam ci yoon nga xam ne moom daa war di jégalul maamam joojee yoroon ay jaam te moytu di demoo naa nun ay góor lanu mësunoo jaar ci jaam ak aman nanu ay jaam diw ak diw noo leen yilifoon ci cosaan sunuy lar lañu sunuy lar lañu lu mel noonu ëpp nay wax moom kay ku mas a xam ne mas nga am ci say maam fii ci réew mi ku fi yoroon ay jaam rek te xamoo ba xam njaam nga jaami yoon la wala jaami aada rek la mooy ceddo yi rek ñoo ko sosoon waaye du jaam ci yoon nga war di jéglu sa bopp te jégluwaaleel sa maam yooyee dañu jàppan defu leen i jaam di leen toroxal ñuy seen moroom mi gor ci loo xam ne lu réeréy la fa yàlla suñu boroom li ci gën a doy waar nag mooy ba léegi am nañu jàpp ne ku bokkoon ci jaam yooyee rek nga xam ne dangaa sëtoo ci jaam yooya doomat ilimaan fekk na jëmmi jaam bi ci boppam sax nga xam ne dañoo xeex ak moom ba jàpp ko ci lislaam mu doon jaam dëgg-dëgg bu tuubee ba dugg ci lislaam mën naa jiite dañu ne kay ci ni téeri fiq yi waxee taamuwuñu ñu def ko ilimaani raatib maanaam ñu fal ko nga xam ne rek moo aadawoo jiite foofa jullit farata mbaa jullit sunna ni ki jullit korite ak tabaski waaye mu jekki-jekki rek jiite moom jëmmi jaam boobu kat laa wax sib rek la waaye du tee bu jiite itam mu baax kon nag nanu wóor ne ku sëtoo ca ñooñee bu fekkee ne sart yi taxamat ilimaan daje na ci moom rek mook ñeneen ñëpp ñëpp ñi seeni maam mësta jaar ci ak njaam ñoo yemoo kepp kepp kon nanu jàpp foofu te takk ko ne ka nekk jaam dëgg-dëgg ci yoon ci lislaam te góoree gut kooku lañ wax ne sib nañu ñu def ko ilimaani ratib maanaam fal ko mu baaxoo jiite foofa jullik farata mbaa julli goo xam ne du farata waaye sunna la niki korite mbaa tabaski waaye mu jekki-jekki jiite te faluñu ko ilimaani ratib moom jaam boobu kenn sibu ko te it sib mooy loo xam ne bañ gaa def daa gën rek waaye buñ ko defee itam mu baax na jàpp ne ndegam jëmmi jaam ba lañu wax ci loolu kon néew na nag koo xam ne daa soqi koo rek ca jaam ba mu mësta jaar ci njaam ñu bëgg koy jox àtte booba loolu lu mat a xam-xam la te xam ne njuumte la ku ko jàppoon na ko teg fee te moytoo waxati lu nuru loolu loolu ak laabiire la ndax addis ba daa wax ne ad diinu an nasiha diine mooy laabiire xikmatun li xikma la baalixatun bi aji dem dayo wala nga ne buy aj jot bu ne iqtibaas bu bàyyi ko ci iqtibaas nee na lii wax bu ama am njariñ la boo xam ne da koo génnee ci téere bi ñuy wax al iqtibaas fa in takun dem da ngaa nekk aakila risqillaahi di aji lekk wërsëgu yàlla wa wa anta te yow laahin aji fo nga fii kulli zamanin ci jëpp jamono walam tatub te tuuboo li talabil xufraani ngir sàkku njéggal mujj taxidan mbir mu ngay aji farlu fa daaxilu niiraani kon day aji dugg nga ca sawara ya laa taakulanna bul di lekk abadan mukk risqal illaahi wërsëgu buur bi fii kulli xiinin ci bépp waxtu suma ta bu topp da nga jaamu si waaxu kudul moom bal li fi nekk ak si da ngay baril al amala jëf ya lillaahi ngir yàlla al ahadi mooy kenn miqdaara faqrika kem sag aajowoo li aw ni jëm ci ndimbalam abadan faawo ne bu fekkee ne yàlla moo la sàkk di la wërsëgal danga war a fexe ba taxaw temm ci gëm ko wóotal ko di ko jaamu waaye nag bu la yàlla sàkkee di la wërsëgal ngay lekk wërsëgal bi te foo toll rek yaa ngi fo jéemulaa tuub sàkku njëggalam ah loolu de boo ko defee xamal ne wàcc goo yoonu sawara moytul di lekk wërsëgu yàlla bi ba noppi di jaamu sa bakkan mbaa saytaane mbaa àdduna mbaa bànneex mbaa leneen fexeel ba yàlla mi la sàkk yor si lépp di la saytu ni nga xamee ne moo la sàkk mënoo ko woon gannaaw mën laa demal sa bopp sa lépp mi nga aju ci moom fexeel ba di ko bàyyi xel lépp lu mu bëgg nga di ko jéem kem sa kàttan lépp lu mu bañ nga di ko sori kem sa kàttan waa amal te nga jëf li fi dunyaa ñeel ji li àdduna bima ci kem loo xam ne takkoonu da nga nekk tam kusu di ko mën a saxe fii ci moom ayyuhal fatinu yow aji xellu ji waamal da nga jëf li uxraa ñe àllaaxira xadrama kem la nga xam ne tabxaa da nga ko des xadan ëllëg fiihaa ca moom alaxira wa man xaalafa ku jiwanteeg zali laaxaa mu taseeg radan alkande booy jàngoo mi nag wax ma li lu xuraa rek la ñu mën a jàng nee na bul fàtte ne adduna ji nga nekk moom doo fi yàgg as ndir rek nga fi am kon nag boo ko fàggulee rek loo fi mën a nekke mu doy sëkk mel ne tey bu bët séddee nga dem di naweti ca àll ba foofee ca àll ba da nga fay def rek loo fa mën a nekkee ndax xam nga ne bu liggéey bi jeexee rek nga ñibbisi fii nga dëkk nga xam ne lépp loo fonk yaa ngi koy waajal fii nga xam ne fi nga dëkk foofee nag ca àll ba moom da nga fay nawet rek di fa gëti la nga fay mën a nekk rek moom nga fay yóbbu te dalay doy sëkk doo fa geestu dara lu may rek xam ne lee nga dellu fa nga dëkk dëgg-dëgg àdduna ak alaxira noonu la mel àdduna ab jaarwaay rek la doo fi yàgg kon nag lépp loo fonk na nga ko jiital mu jiitu la alaxira ja nga xam ne boo fa xasee sanc doo toxooti mukk-mukk fii nga xam ne nag moom da nga fi romb rek di jàll loo fi mën a jaare rek ba jàll doy na kon nag fii ay tool la alaxira mooy kër ga alaxira moom lépp loo ko jëfal rek xeeb ko ndax moom amul fu muy yem loolu nag nee na lu mat a jàpp la jàppi àdduna na mu toll jàppi alaxira na mu toll te bañ leen a jaawale mënta ñàkk ku ko deful rek bu watuwut alko waa amal jëfal li naarillaahi ngir sawaraw yàlla wi xadra sabrika kem sag muñ xalas ci daadil xarri ci taru tàngaay wa an law tus la ka ci donte dañ la caa sóob dañ la caa dugg foo toll na nga farlu ci jëfe ndigal bàyyi tere ndax nga mucc ci sawara xëy na sax jëfe ndigal bàyyi tere mën naa metti waaye nag lu metti metti sawara gën koo metti te ñàkk jëfe ndigal bàyyi tere mën naa yóbboo sawara kon nag deel fàttaliku sawara ak na mu mettee nga xam nga xam ne ñàkk pexe rek moom la ca nit di nekke waaye dug mën a dékku di ko fàttaliku ba lépp luy tax nga dem ca rek nga di ko moytu bu dee ñàkk ji fi ndigal mbaa ñeme bay def lu ñu tere nga xam ne moo cay yóbboo ca sawara wa foo toll rek nga di ko moytu te xam ne te xam ne jëfi ndigal bàyyi tere moom lu mu metti metti ku ko defut sawara wam ko mën a yóbbu moo ko gën a metti fa xaysuma taxaf foofi ragale ilaahaka sa buur al ahada kay kenn yaxaf ka dal lay ragal kullu ahadin kenn ku ne min xaw fi kahoo ngir sag ragal ko nee na saa yoo ragalee yàlla sa boroom ragal gu wér a wér rek nga xam ne nekkul rek ragalu gëm kese waaye danga ko dund boole ci su boobaa kenn ku ne ak lenn lu ne dalay daldi ragal waaye nag soo ko ñeme itam lépp dal lay ñeme ragal gi muy wax mooy ragal goo xam ne koo ko yemul ci gëm rekk ne yàlla dong mooy jariñ mooy lor te moom rekk moo fi nekk di jëf waaye daa àgg ci dund ko bu mu fees xolam ba nga xam ne mënta gis lu may loola su boobaa yàlla du xabtalati lenn lu am lor ba mën a jëm si ci moom di ko lor faslun li ab dog la fii tafsiili ma ci tàqale la nga xam ne tuamaru def na dundale bii ci moom al awqaatu waxtu ya day tàmbali nag yem la waxoon ne la mën nga cee farlu ndax di ko feccilee sa waxtu yu féex te ñu am njariñ lool yooyu la tàmbalee teqale benn benn tàmbalee ko ci naafila wa akkadoo feddli nañu an nafla naafila bu aydal maghribi ci gannaaw timis sittan juróom benn rakka awis na tey ni wala ñaar an xayri nabiyin jële ci ngën ji ab yonante bokk na ci naafila yi fetliku gannaaw boo sëlmale timis nga naafila ñaari rakka lu mu néew néew nee nañu sëñ mag bi daana santaane ku sëlmal timis mu julli ñaari rakka rakka bu jëkk ba faatiha ak xul ya ayyuhal kaafiroon rakab ñaareel faatiha ak xul wallahu ahad daana digle itam julli farata goo sëlmal rekk jàng qul huwallahu fukki yoon ak yaar taxul nag mu wax ca dara lu may digle ko rek noonu gannaaw timis nag ñaar moo gën a néew ñeent baax na moo gën a baax waaye juróom benn nag moom moo gën a baaxati dana ko wax léegi ca kanam wa arbaxan ak ñeent xabla zuhrin ci njëkk tisbaar wa baadaha ak ci gannaawam wa arbaxan ak ñeent xabla xasrin ci njëkk takkusaan laa ba adaha du caageenu ci gannaawam moom takkusaan sopp nañu cofeel gu feddlikoo feddliku bala ngaa julli tisbaar naafila ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal ba tey boo noppee tisbaar nga naafiliwaat ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal bala ngaa julli takkusaan tam sopp nañu ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal door jul takkusaan gannaaw takkusaan nag moom dañu sib naafila moo tax mu ne laa ba adaha waxewa kasa niki nii baxdal xisha ci gannaaw gee gannaaw gee taamu nañu naafila lool soo mënee def guddi gu ne gannaaw gee fukki raaka ak ñaar ak wetar ni nga koy defee ci weeru koor loolaa gën soo ko mënul nag la gën a néew mooy nga def safa ak wetar safa mooy nga julli ñaari rakka achafon day firi tollantiku nga teg ca benn al witru muy wetar muy firi ak tool soo dee yem ci safa wetar rek rakka ya loo ci jàng mu baax waaye safa ca rakkaam mu njëkk dañ caa taamu gannaaw fatiha sabhisma rabbika rakkab ñaareelam gannaaw fatiha qul ya ayyuhal kaafiroon wetarit benn rakk rek la ñu taamu nga jàng ca gannaaw fatiha qul huwallahu ahad ak qul ahudu bi rabbil falaq ak qul ahudu bi rabbin naas daldi taaya sëlmal wastaxsanoo rafetlu nañu taxiyatal masjidi nuyoob jàkka ba an ñaari rakka lay doon bayyanoo biral nañu ko sopp nañu saa yoo duggee ci jàkk rek ci waxtu woo xam ne araamalu ñu naafila sibuñu ko te it nuru laa romb rek jàll bëgg nañ kon nga julli ñaari rakka nuyoo ko jàkk ji bala ngaa toog boo toogee itam du tee rek ñu bëgg nga jóg def ko su fekkee da ngay romb rek jàll nag kon du aajowoo ngay nuyu jàkka ja bu dee waxtu wu ñu siba naafila wala waxtu wu ñu araamal naafila ba tey da ngay jékki-jékki toog waaye doo saña julli bu dee taxawal farata itam doo saña dawal dara dara ci ay ràkka moo xam nuyoo jàkk la moo xam leneen la ndax bu xasee taxawal farata suñu su faa tàmbaleeti geneen farata gu bokk te googa waaye nag boo yéene waalee nuyóob jàkk bi ca farata ja ñu fayaale la tuyaabay nuyóob jàkka wal witru wetar aakadu moo gën a feddliku alal mashhuri ca la ñu siiwee min kulli sunnatin ci bépp sunna bi xayri zorin ci lu dul neen mboolem julli sunna yi wetar moo ci gën a feddliku gën cee dëgër julli sunna yi mooy julli yi nga xam ne boo weesoo farata yi ñoo ci topp ci am daraja yooyu nag gannaaw wetar mi julli korite ak gu tabaski ci lañu bokk julli muuru jant ci la bokk ak julli mbaaw julli muuru weer nag moom dañ caa wuute am nañu ko boole ci julli sunna yi am ñu ko boole ci yeñu sopp te agul ci sunna war a xoobu xemem loo nañu fii rakk xatay ni ci ñaar rakk li fajri ñel fajar fa lay sa tuqdaa deful fay xayruha kudul moom waaye maanaam xayruhuma fii maa ci la nga xam ne ishtahara siiw na bi leen nawaafili ci naafile yi fa tuqdaa moom def na ko fay li zawaali ba tisbaar tama nas sa niki yaxale bi ci moom xalilun xalil dun nawaali kay boroom may ga ñaar rakkay fajar moom raxibatu la raxibatu mooy loo xam ne ki doon tëral yoon wi wax na ci lu tax xeet yi war koo xemmem ndax bam ne rakxatal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biiram loolu wax ju rëy la moom nag boo weesoo julli sunna yi mooy gën a màgg naafile kese kese yi ni kii mooy gën a màgg du mel naafile yoor yoor mbaa ramadaan mbaa yu demee noonu nga xam ne kon julli farata yi moom ñooy féete kaw buñ jàllee julli sunna yi topp ci buñ jàllee raxibatu mi topp ci muy ñaar rakkay fajar buñ jàllee nga teg ci naafile yi nga xam ne dañ leen a sopp ni ki yoor yoor ak naafile yi ramadaan ak naafile yi ànd ak julli farata yi waman talaa ku jàng alam alam yaari alam yi fiihaa ci ñaar rakkay fajar te ami maanaam fiihima amina kon mu wóolu min kulli aadain ci mboolem ay noon tudirru bee danañu lor lam amin fenuma kuy julli ñaar rakkay fajar rakk bu jëkk ba nga jàng ca faatiha ak alam nashrah rakkam ñaareel faatiha ak alam tara kon yàlla musal la ci mboolem ay noon yoo xam ne yu la bëgg na lor la wasittun juróom benn rakka aw sintaani wala ñaar aw samaanun wala juróom-ñett istaxabaxaa sopp na leen ak dayyaanu fayaakoon ba waxta duxaa ci waxtu yoor yoor naafila yoor yoor lu ñu soppa sopp la gën jaa néew ñaari rakka ñeent baax na juróom benn ba tey gën a baax juróom ñett nag moom mooy gën jaa bari nga xam ne daal dana wax ci kanam ne la taamuñ nga sawar ba weesale ko juróom ñett wa man yusalli ku julli ba an ñaar bu xaydal maxaribi ci gannaaw timis fa sa'yuhu jëfam ja yun maa def na ko askan li sa'yu nuxu bi jëm ca jëfi tànneef ya gannaaw timis naafila ñaari rakka rëy na lool ku ko def rek jëf na jëf ju màgg joo xam ne ñu baax ña ñoo ko daan def wa man yusalli ku julli ba'daha ci gannaawam moom timis waawan juróom benn rakka sabata bopp saxna wala mu fasilha te teqaliwu leen bisu in ci wax ju ñaaw xadarat kon ñu yemoo lëxoo ñeel ko xibaadatan jaamu tafi goog dana dikk mustahsanatan mbir mu muy luñu rafetlu xindal illaahi fa buur ba misla xaddi bay kem li mu fukk ñaar sanatan ci at boo sëlmalee timis daldi naafila juróom-benn rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñaar sëlmal te diggante ba nga sëlmalee ak ba nga jullee juróom-benn rakka yi waxoo fa jenn wax ju ñaaw day mel ne jaamu nga yàlla fukki at ak ñaar jaamu yàlla gu rafet a rafet gu mat a mat sëkk juróom-benn rakka yi loolu lay wecci wa man yusalli ku julli arbaxan ñeent qabla zuhrin ci njëkk tisbaar wa arbaxan ak ñeent min ba adihaa ci gannaawam tatabbuxan ci toftaloo xorrima kon araamaleef jismuhu yaramam wa xaalal niiraani ca sawara ya xadan ci ëllëg wa yusri on te dana gaaw ilal jinaani jëm ci ajana ya ku dawalal tisbaar ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw tisbaar itam nga julli ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal yàlla daal di araamal sa yaram ci sawara te bu ëllëgee da ngay daal di waaxu rekk wuti àjjana waaye nag ci waxin wa day aajowoo sàmmoonteeg moom saa yu nekk nga xam ne mën naa mu rëcc la du sa coobare waaye dañuy sàmmoonteeg moom waxuñu rekk def ko benn yoon ba ñaar daal di bàyyi addis ba dane man xaafada ala arbaxi rakahaatin qabla zuhri